kii ni teewlu si Seneweb TV seneweb.com ak Seneweb rajo asalaamaaleykum amati neen mbégte di ñëwaat si euh, tolluwaay tolluwaay noonu la amaatee mbégte dalal fii euh, professeur euh, Cheikh Oumar Diagne ñu am mbégte lool di ko dalalaat professeur maa lay nuyu di la bàyyi nga nuyoon teg ñuy teewlu. ah sànq bu tedd bi ñu ngi lay delloo ziyaara bu baax di la fay nuyu di nuyu waa Seneweb yëpp ak di nuyu ñëpp ñuy seetaan ci biir réew ak ci bitim réew ñaan yàlla yàlla defal ñu tawféex nag ba lu fi waxtaanee rek incha allah mu nekk njëriñ. saxel dafa màcc jëm si wàllum euh, finance islamique mbirum crypto monnaie euh, mbirum jokkalante réew yi am na téere boo jénnee sax lu yàggul tuddee ko Datawar mhm. euh, le déclin des états et la disparition des nations mu nekk benn téere boo xam te nii aussi dafa ñëw dooleeku si téere yi nga xam te nii mhm. da koy faral di jénnee mhm. loolu rek benn pàcc la sa présentation nga nekk itamit koo xam ne nii yaa ngi liggéeyee sa poste jamono ji coow yu bëri fa lool loolu yëpp tam dinañ si waxtaan élection yes Gambie ak d'une manière euh, générale. Mhm. Euh, téere bi balaa ñuy gën a xuus parce que mhm. titre bi rek. dafay mhm. dafay dafay dafay attirer. Euh, le déclin des États et la disparition. des nations loolu soo ko doon tënk fan leen jëm at fan leen toll. waaw sëñ Mouhamed dañoo toll àdduna bi nga xam ne dafa am benn guerre bu doy bu fi nekk. te ñu bëri ñu ko xel. Euh, yaa ngi gis rivalité technologique yi rivalité économique et monétaire yi. Mhm. rivalité même politique yi euh, et idéologique. waaye gisuñu guerre bu nekk si suuf bi nga xam ne mu ngi nekk di organiser jeexul doomu aadama. maanaam mhm. doomu aadama seen lañu commencé xalaat ni ñu ko ni ñu ko fàggaagalee euh, avec les machines maanaam lii révolution bu doy waar bi nga xam ne ñuy woowee transhumaniste yi. lu ñuy woowee les malthusiens les les les sociétés secrètes maanaam ñëpp saay-saay yoo xam ne ñoo nekk ci àdduna bi di ko mm. doxal ñoom ñoo àndandoo di xalaat ñu mën a dindee règle yàlla yi comme ça ñi mën a ko ne doxal suuf ñoom seen bopp donc livre bi ci loolu lay gën a wax. xanaa euh, gannaaw révolution industrielle bi révolution technologique bi xanaa bii kon mos topp. effectivement mooy la dernière révolution sax bi nga suñ ci paree euh, maa ngi wax ci livre bi benn nit bi nga xam ne dina génn bi ma tuddee Host mooy euh, Homo stultus ñu wax l'Homo stultus technologicus bi nga xam ne moom moo nar a remplacer l'Homo sapiens sapiens donc muy le stade suprême de l'évolution bi nga xam ne dina dindi nit. andi ay machine maanaam des des des organes bioniques ak y' a beaucoup de choses yoo a ñëw mu am ay nit augmenté pour mën a yokk capacité doomu aadama ba yóbbu ko ci ci tolluwaay yàlla en réalité. maanaam euh, nit loolu li muy demee ay xeetu robot lay nekk wala nit si boppam la ñuy tàggat ba mu àgg foofu waaw nit la ñuy tàggat ci xam-xamu yaramam mhm. euh, dañuy tàggat ba débloqué yenn fonctionnalité mi nga xam ne fonctionnalité yooyu jamono bi science mu ngi ciy liggéey te pare na ci pare mhm. waaye au delà de ça organes yu bëri yi nga xam ne dafay poser problème euh, ñoom déjà xaar nañ des organes bioniques organes yi nga ne qui sont électroniques et biologiques en même temps yi nga ne mën na remplacer li yàlla tëral xam nga demee bay xalaat ay globules artificiels globule blanc globule rouge mhm. nga xam ne kon nii am na fu ñu bëgg yóbbu doomu aadama bi nga xam ne euh, li ñuy wax l'immortalité hmm. léegi mu commencé nekk benn réalité euh, pour ñi nga xam ne ñoom ñooy xalaat euh, ci nouvelle ordre mondial boobu donc livre bi un peu si loolu lay tracé hmm. ak surtout la confrontation bu doy waar bi am aujourd'hui entre la Chine et les unis ak hmm. yeneen dëkk yu si booloo yëpp fa la nar a yóbbu adduna bi par rapport à à la donnée may fàttali nag la donnée fii au Sénégal presque amul débat Euh, ñun suñu ay données ñu ngi koy jëfandikoo. pourtant ñu neexee pourtant ñun sax am na benn data center boo xam ne nii def ngeen ci benn inauguration <laughs> à grande. ah yaa si tappale boobu ngay. à grande pompe sa jëm ñaajo. boobu bàyyi bañ cee wax boobu amul problème du ma ci wax tey. <laughs> voilà mais pour ñu ñaan parce que dégg naa ay baat nouvel ordre mondial. Mhm. Euh, yaa ngi koy wax. Euh, mhm. kon di wax tam si wàllum concurrence si diggante. ñun mhm. ñu tuddee les grandes puissances su mel ni États-Unis ak Chine. kon mu mel ni mbir mi lu la. kon mbir mi ñun Afrique. ban taxawaay lañ nar a am si euh, mutation yooyu noonu ngay junj fu mu nii. waaw ñun Afrique actuellement dafa mel ni par rapport à cette guerre là Afrique moom bokku ci maanaam siècle bi moom lay wax chaque fois ne. siècle bi ñu ba léegi naan sa siècle la sera africain ndax ressource ñu am nangam. Mhm. adduna bi ressource bu ëpp solo bu ñuy am moom laa tuddee man l'or multicolore moom laa ko tuddee si téere bi euh, en faisant référence à la aujourd'hui ressource bu gën a extraordinaire c'est la donnée mm-hmm. aujourd'hui entreprise yu gën a ngànd ci àdduna bi sax c'est des entreprises qui travaillent sur la donnée suñuy wax ñoom Facebook ak suñuy wax ñoom euh, ñoom ñëpp ñoom mm-hmm. ñëpp ils travaillent sur les données donc données la ñuy amee xaalis donc euh, aujourd'hui kon africain ñoom enjeu boobu jëlaguñ ko en compte ndaxte administration maanaam si wàllu gouvernance la donnée mm-hmm. ñun teguñ si benn jéego ci wàllu infrastructure yi maanaam les équipements yëpp yi xam ne ma ñuy defaree données yi ñun benn dañuy jënd ay matériels yu jógee bitim réew ci wàllu réseau yi si boobu maanaam réseau câble sous-marin yeeg satellite yëpp nga xam mooy organiser le transfert wala boog le voyage des données sur toute la planète Afrique ñu amuñ ci benn et si wàllu tamit euh, suñu mot à dire euh, ci jamono ci ci ci xeex yi muy semi-conducteurs yi yeeg lépp li xam mooy li am Afrique tamit wax dëgg yàlla ils sont pas présents maanaam l' Afrique est totalement absent euh, ci biir guerre bi maanaam dañoo nekk gradin di tàccu su États-Unis dugalee bu ñu tàccu bu Chine dugalee beneen bi ñu tàccu Euh, yeneen dëkk yu bëri ñu commencé jël en compte ces enjeux là di dupliquer ay modèles di ut ay géants ñu wax les géants Chine loolu def donc euh, il a dupliqué le le le les GAFAM. Mhm. ñun Afrique ba tey wax dëgg yàlla nous sommes dans la consommation amaguñu benn vision de politique numérique euh, d' ensemble. ba wax waxu souveraineté ci wàllu technologie ak souveraineté ci wàllu ci wàllu digital. Euh, yaa ngi koy junj mais euh, ndax tamit amul ay réew yoo xam ñu ngi def ay jéego si wàll boobu par exemple Ghana yenn saay hmm. euh, dañ koy dañ koy pas Ghana Rwanda laa bëggoon wax dañ koy citer en exemple si wàllum évolution numérique ak hmm. yooyu ndax jéego yooyu noonu doy na hmm. wala ndax gis nga beneen réew si Afrique boo xam ne nii mu ngi si taxaw ay. si taxaw ay waaw Rwanda deful benn jéego. Rwanda zéro Rwanda si ginnaaw Sénégal la nekk ah bon Rwanda dañ ko jël tegal yóbbu dañ ko yóbbu niveau bi nga xam ne dafa nekkul rek ndax Rwanda dañoo am benn président bi nga xam ne expert la en matière d'image institutionnelle waaw mm-hmm. ah, maanaam euh, jàmbaar la ci wàllu boobu wax dëgg yàlla mm-hmm. waaye Rwanda sincèrement du exemple ci boobu Sénégal da ko raw ci wàllu euh, as tuut sax numérique ak technologie euh, ci wàllu ci wàllu yu bëri nag Rwanda wax dëgg yàlla rawul Sénégal Sénégal man ñeewu ma ko ndax Paul Kagame li gën a ñaaw sax lay def maanaam ci ay ressources jàmbur dëkk yu nekk si wetam yoo xam ne mu ngi koy sàcc maanaam Paul Kagame dama gis dañ koo màggal trop ci continent africain. Mhm. jàpp ni ndaanaan la te du ndaanaan. donc c'est que li lay suñuy président boo déggee ni waxee si Paul Kagame. Mhm. Euh, ak tam sax ni njiitu biti réew yi. waaw mën day ñëwaat si li nga sànq. ni ñuy waxee si Paul Kagame. Mhm. au delà de démocratie bi nga ni ñu bëri jàpp na ne lu fa lu fa waaye si wàllum taxawaay ñu dañuy jàpp ne leadership am lu loolu nag mooy point fort loolu man dama ko si naw ndax c'est quelqu'un bi xam ne respecté na opam Euh, fonk noppam ba su ko njiitu tubaab bi di ko bëgg a ñàkkal fayda comme suñu njiit yi ñuy ñàkkee fayda seen kanam moom daf koy bañ donc euh, maa ngi fàttaliku daaw xama daaw jëkk euh, président américain woon na ñoom ñëpp ginnaaw benn sommet pour président africain ñoom ñëpp la bëgg recevoir andoo en même temps kaay ñuy wax ci problématique yi taf taf ko ngeen dem boobu jamono boobu Trump moo fi nekkoon hmm. donc il a refusé mais moom kenn du ko jël di ko di ko di ci et loolu dafa bokk si jom nag yoo xam ne peut-être jeunesse africaine bi dañ koy xaar seen ay njiit gis seen njiit yi dañoo ñàkk jom ci kanamu tubaab bi donc euh, macha allah mais en tout cas dëkku africain yi kenn tegu si benn jéego ci biir guerre bi guerre bi aujourd'hui euh, c'est entre l'Orient et l'Occident États-Unis ci équipe am dëkk européen sax dañoo nekk en retard ñoom France ak Angleterre sax dañoo nekk en retard ci guerre bi maanaam ñoom sax bopp sax euh, ce sont des aujourd'hui des colonies numériques ñoom ñu ngi jéem a xool duñ ci génnee par rapport ak situation boobu. booy wax Orient yan réew ngay def référence euh, précisément je référence à la Chine d'abord. ak groupe bu réew yi xam ne tamit ils sont un non alignés ils ont compris les enjeux autour de mun naa citer ku ni Russie naa citer ku ni Iran nga xam ne ñëpp tamit wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi bàyyi xel ah, hmm. leen def lu leen neex nu leen neexee donc ñoom au moins ñu ngi bàyyi xel euh, aspect yooyu d' accord euh, mais même Iran tamit euh, mi ngi am ay dégg sërëx ñu koy tegal si wàllum nucléaire beeg yooyu noonu kon hmm. est-ce que hmm. Afrique mun nañ ko reprocher loolu. Mhm. Euh, le fekk que même am na ay grandes puissances yoo xam te ni pour ñu dugg jafe-jafe la. Mhm. Afrique bi nga xam te ni lu baree bari mu ngi koy defar. Mhm. fondamentaux yi ba léegi ñu si leen nekk. kon est-ce que mën nañ ko reprocher ce retard là du point de vue euh, numérique technologique technologique. waaw Iran euh, problème ak problème Afrique du ñu benn xam nga Iran moom problème am l'islam la. islam mhm. problème yu ngand yi mu am yëpp révolution islamique bi mu defoon dans les années fin années 70 début années 80 mhm. moo tax le nouvel ordre mondial jàpp dañoo war a xeex dëkk bi ndax kii dafa bëgg créer benn modèle bu bees bi nga xam ne mhm. modèle boobu suñu caay-caay gi du mën a fonctionner Turquie da nga koy dugal foofu wala bokk non bokku ci c'est différent donc c'est différent donc euh, Turquie c'est pas bo bokkuñu niveau donc pour dire kon pays africain ñoom euh, amuñu ngant nag euh, sëñ a une relative stabilité am mbooleem ressources yi te mënoo xalaat sax noo mën a noo mën a yoree sa dëkk euh, mucc ayib bañ a dépendre maanaam pays dafa mel ni dañ la dépendance et dans yi mooy feebar yu gën a bon ñi nga xam ne moom ñu dugal euh, dëkku africain que nous faisons de souveraineté moo xam moo xam souveraineté euh, nucléaire ba ci wam hmm. moo xam souveraineté scientifique et technologique ndax aujourd'hui même fii en Afrique la pensée Euh, lu tubaab xalaatu pour ñoom fii africain bi ko xalaatee dañ lay dañ tuuti la mu koy wax ak benn sa benn xarit bee nga xam ne moom mu ngi benn dëkk si dëkku tubaab yi. Euh, dañuy waxtaan si livre bi mu ne mais li ngay développé nii li bu ko tubaab waxoon dina am benn dayoo bu ñu ko yóbbee xam ne monde yëpp ñu waxtaanee mu ne ko hélas man j'ai ñu ko jël kon au sérieux sur le plan international donc dafa am benn benn benn benn handicap même intellectuel et même de la pensée bi nga xam fii en fii un noir pour Euh, mbokk noiram bu waxee dara waxul dara lu am solo mais bu ko tubaab waxee lu am solo la. mais pourtant noir yi boobu digression la euh, ñu leen di primé. Euh, par exemple si wàllum mbind Mbougar Sarr même bu nekkee roman la. ay fiction la ak nangam. mais moom tamit ñu ngi koy primé kon est-ce que loolu tam war ñu ko mën a relativiser tuuti. waaw xam nga li li prix euh, tubaab bi dafay dugg rek en droite ligne c'est ay agenda ñoom yu ñu am y a des agendas yu tubaab bi yi nga xam ne wax dëgg yàlla il prime des gens qui travaillent pour leur mbir di tubaab bi sëñ Mohamed. Mhm. tubaab bi du remercier te du jaajëfal mukk yi nga liggéeyul ko. ñu nag yàlla fa def ñun liggéeyuñu tubaab bi xalaatuñu pour tubaab au contraire ñoo taxaw di jéem a xool nu ñu dindee jeng yi xam ne loolu tubaab bi jeng suñu askan moo tax ñun tubaab bi mënuñoo primé c'est pas possible bés bu ñu tubaab bi primé sax na gaa xam ne war nañu suñu askan donc Bougar na moom c'est pas c'est différent Bougar euh, mbootaayu góor jigéen nekk ci àdduna bi yëpp ñoo def pression pour ñu jox ko un prix pour neexal ko ginnaaw bu leen liggéeyalee woon ci ay ouvrage précédents yi xam ne euh, wax dëgg yàlla amoon na taxawaay topp seen cause di jàpp ni kii war nañu koo jaajëfal parce que il est allé contre vent et marée avec son peuple kii waruñu koo bàyyee noonu tubaab noonu ñu mës a fonctionner dañ lay jaxase ak sa askan neexal la Euh, nga mujj nekk un hybride boo ko tubaab bi te boo toog sa askan. yi mhm. lay jëfandikoo ñu leen. dinaa ñëwaat si sujet bi lii digression la mais mhm. loolu est-ce que tamit bu ñu wax si droits humains est-ce que tamit keroog rek dal naa fi Seydi Gassama euh, par exemple mu jàpp ne mbirum borom ñaari tur Sénégal arsenal juridique bi mu si am doy na euh, soxlawu ñu si yokk ay criminalisation ak nangam mhm. mais bu ñu ko jëlee du point de vue droits humains. est-ce que tamit ñoo euh, nangu ay nit yu plaider ay nit pour que euh, <laughs> la liberté de disposer de soi-même comme ni nga koy waxee. ñoom ñu mën a euh, gallo yow. waaw xam nga le droit moom c'est un instrument bi xam ne dafay adossé wu sur benn réalité socio-anthropologique ak benn legs culturel. ak benn benn benn spécificité wala boog benn benn benn essence religieuse en réalité mhm. droit kenn ko kenn du ko génnee noonu dans l'air aujourd'hui en France kenn bu fa dem foofu taxaw di jéem a di jéem waxtaan ne dañoo war a may nit ñu takk kat jabar mooy yoon nangam. Hmm. ñu beddi la dañ lay jàpp tëj la sax. Hmm. parce que li ngay ni c'est grave la les lois ak la tradition euh, européenne. ak l'histoire de la France ñu ngi doon xalaat nekk. ak effectivement te mooy dëgg sax ndax seen histoire bokkul ak polygamie nii l'islam la la l'histoire la France c'est une histoire foncièrement chrétienne et même euh, romaine. donc loolu seen seen culture kenn ku nekk nag culture la war a doxal donc aujourd'hui ñun fii euh, Sénégal li mu wax euh, dama jàpp ni waxu daanu euh, am c'est totalement faux wax l'article 319 tuddul sax góor jigéen ak compte naturel kese la wax et sur la place publique la en réalité donc fii góor jigéen mais ñoom ñeneen par exemple góor a góor jigéen a góor loolu jigéen a jigéen ngeen baal ma hmm. loolu leer na ne que mbirum acte contre nature la soxla. waaw léegi nag comme que nag législateur sénégalais un peu flou sur la question. Mhm. ñun on demande juste que mbir bi na clair. ñun on a on a proposé te loolu sax semaine bii di ñëw incha allah di ngeen ci dégg incha dara ndax euh, collectif bi pare na li mu doon liggéey. Mhm. donc aujourd'hui comme que le législateur euh, n'est pas n'est pas très clair sur la question moom si moom définirul ba léegi la mooy acte contre nature comme que le président dit que moom du nangu mukk góor jigéen am d'accord ci góor jigéen li kon wax dañuy gestu Euh, réewu euh, jullit la réewu aada la réewu ay ceddo la yoo xam ne ñi ñëpp moo xam suñu héritage culturel moo xam suñu suñu réalité religieuse nanguwul ko jigéen nanguwul ak lépp lu ko associé muy zoophilie muy lesbianisme muy lépp donc euh, wax dëgg yàlla loolu moom jàpp naa ne yàlla na si yàlla may ndam te loolu maa ngi ciy woo le peuple sénégalais yëpp dans leur ensemble ñu jàpp ci combat bi ndax combat de valeur bi nga xam ne pour mën a génnee Sénégal dans le registre du nouvel mondial bi nga xam ne ordre boobu noonu mooy xalaat àdduna sans yàlla d' ah, euh, léegi damay dugaat si si sujet bi sànq digression rek la woon parenthèse la woon mhm. mhm. euh, mbirum espionnage yi tamit mhm. euh, ndax fu mu toll nii parce que lépp tamit day delluwaat si mbirum données lu mel ni espionnage tamit ndax souveraineté boobu noonu mën nañ wax ne réew mu mel ni Sénégal mi ngi sekkay jéego jëm si waaw le Sénégal n'est absolument pas souverain en matière d' espionnage déjà espionnage sax ñun dafa am quatre choses yu ñuy boole yoo xam ne du ñu benn l' espionnage diffère de l' intelligence qui diffèrent de, du renseignement. Mhm. donc euh, yii nii euh, ak du contre-espionnage. donc kaat yi état bu sérieux daf koy jël di ko jëfandikoo d' sur la sphère économique ñun on parle aujourd'hui d' intelligence économique et de veille stratégique mhm. maanaam donc dëkk wi kon war ay jumtukaay yoo xam ne war na mën a anticiper son marché war na mën a comprendre les innovations qui se préparent war a comprendre ay ay ay adversaire am ak ay concurrent am mhm. war a comprendre les besoins euh, de son marché moom si moom te lii il faut beaucoup d' intelligence à la limite il faut du renseignement même euh, à Sénégal moom Euh, dëkku yóbbaale ma la maanaam c'est un état satellite Sénégal ci wàllu yëpp nag il n'est pas il n'est pas indépendant amul souveraineté en matière de renseignement et d'espionnage nous dépendons fortement euh, de nos partenaires français américains israéliens donc ñii nii moom wax dëgg yàlla ñoom ñooy liggéeyal Sénégal ñun fii renseignement bi ñu am sax dañ ko tuddee mot renseignement mais c'est pas du renseignement maanaam loolu c'est c'est de l'espionnage en réalité mooy li suñu service police ak gendarmerie def ça s'appelle pas renseignement donc la espionner ay sëriñ Euh, mettre sur écoute ay nit c'est juste de l'espionnage c'est pas du renseignement. mais loolu ndax mënuñu koo comprendre. waaw un état bu normal nag yàlla dafa war a jéem a xaa xam à temps réel qu'est-ce qui se passe chez lui qu'est-ce qui pour mën a prendre les mesures qu'il faut mais dañu seetlu ni kon sa état Sénégal kon moom defu ko pour loolu ndax ay jiyee bu am démb rek yaa ngi gis li fi xew yëpp ci ci ci agression ci violence ci ci ci ci yàq yi nga xam ne ay xale nga koy def bu amoon des services yu sérieux ay services yi nga xam en tout cas euh, yu mel noonu warul am. donc kon le renseignement fii wala boog l'espionnage fii au Sénégal elle juste orientée si wàllu diine et loolu moo dommage nee la man fii Sénégal euh, la police sénégalaise jël na ay nit yoo xam ne ay policier sant leen benn liggéey lu may ñu koy espionner ay jumaa parce que juma yi la ñoo wax ni ñi koy jiite amuñu tarix nga xam ni kon dëkk bi kon yaa benn niveau bu nekk bi nga xam ne euh, utiliser wu ñu ko nii si économie nii suñu kaaraangee par rapport à toutes ces forces là qui sont autour de nous ñu ngi am ay dëkk yoo xam ne frontalier dëkk yooyu mu ngi si Brasilia actuellement des mouvements terroristes ñu ngi foofu donc dafa am fu am solo fu ëpp solo ki doon mën jëfandikoo euh, arsenal boobu que di ko topp ay homme politique ay ay ay ay ñu ñëpp ñu contre nguur ak wala képp ki nga xam ne d'accord ak président ay activiste ak ay <laughs> ku mel ni yow voilà donc arsenal boobu pour man wax dëgg yàlla war nañu ko jëfandikoo feneen à l'ère de la guerre économique bi ñu nekk ak la guerre stratégique bi ñu nekk et la guerre des données ndax si guerre des données bii si moom ñun aujourd'hui amuñu sax euh, entreprise buy liggéey si wàllu télécom bi xam ñoo ko moom li ñu moom ñun dañ ko doyadil te xam naa loolu dañ si def beneen waxtaan benn bés muy ah. Sonatel euh, Sonatel bokkut ak Orange Sénégal yi ba dañu koy jaawatle dañuy xeex Orange di xeexaal li xam ne ñun ñoo ko moom muy Sonatel aujourd'hui le combat nekkul tout tout sauf orange le combat mooy redéfinir suñu diggante ñu ak orange ba mu ba joxaat jumtukaay Sonatel yi nga xam ne orange moo ko def exprès jéem ko nangu on a pris la partie technique de Sonatel on a pris beaucoup de choses yi nga ko moom maanaam ñun ñoo ko moom ñu démanteler ko externaliser ko créer ay filiales entre ay doomu boos ay tubaab joxante ko entre ñoom pour mën a rey le télécom sénégalais et en attendant bi nga xam ne qu'il y a des exigences ak des ak des devoirs envers l' état français jël suñu ay données di def ay copies di ko jox état français ñuy travailler suñu ay données di travailler suñu lépp suñu données personnelles suñu données yëpp wax dëgg yàlla. Mm. et loolu ça n'aime pas les am fi ay multinationales yu mel ni Facebook ak ñëpp nekk ci biir Sénégal sénégalais yu bëri am fa ay comptes am fa ay données données mooy fu mu te ni moom la. mooy li ëpp solo réew yi ci àdduna bi pour ñi nga xam ne xam nañu dara. kon ndax loolu warul bokk sax si suñu priorité nguur yi nguur yi maanaam souveraineté boobu si wàllum gestion des données euh, mu nekk loo xam te ni réalité lay nekk. mooy li ëpp solo ci siècle bi ñu nekk nii instant ñëpp ñi xam ne bataille boobu euh, absent nañ ci wala doxaluñu ko wallahi ils seront des colonies numériques pour le monde dañuy nekk à la traîne ñuy jëfandikoo seen ay mbir nu mu leen neexee duñ ci am dara Facebook ngi nii ñëpp am nañ fi compte hmm. ku nekk ma nga def sa publicité wala ngay booster ay page wala dara da ngay fay Facebook lan la Sénégal di am dara euh, Google di opérer fii Sénégal il a un chiffre d'affaires waa Sénégal la Sénégal def la moo tax Sénégal xalaatul moom am euh, ay plateforme boppam yi nga xam ne day mën a sécuriser ay propres données bañ n'importe qui mën ko am et lii waxuma sax si wàllu données. mais mais sànq maa ngi tudd data center bi euh, euh, ñu reetaan mais est-ce que loolu mun na ko jàppee comme un pas vers li ngay wax ni waaw data center sax parce que dañ ko commencé dépassé ndax en matière de sax léegi localiser fenn say données sama données yëpp mu ngi fii fii laa ko denc dans cette guerre là. da nga jàpp ne euh, c'est risqué. c'est gars ñu ngi taxaw di xool tout ñu ngi dañoo nekk si benn air bi xam ne on est dans dématérialisation lépp dañu ko dématérialiser ba ci ba ci données yi léegi y'a cloud y'a sax du technologie gën a kawe cloud actuellement yoo xam ne on est en de localiser les données dans des voilà dans des nuages ak dans xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, Sénégal côté boobu dañ ci communiquer dafa ëpp daal dañoo wax wax ju ëpp rek ci benn mbir bi nga xam ne wax jur coow jamono ji mooy euh, la xew sa poste gannaaw bi ñu euh, limogé ki nga xamante ni moom mooy euh, directeur xaw ma ndax ex directeur laa war a am déet. Mm-hmm. bu poste finance mm-hmm. mu jur coow bu rëy rëy am yeneen i mbir yoo xamante ni ñëw na si presse bi muy mm-hmm. ay détournement présumé présumé si lu war a tolloog un milliard sept cent wala lu ëpp boog un milliard cent. boo nu doon résumé jamono ji lii xew poste lan nga ñuy wax. waaw li xew poste de mën nañu ko résumer en trois mots. Euh, lii yëpp ay conséquences su régime Macky Sall en réalité. Mhm. ndax les problème de la poste bu ngi tàmbali en 2012. avant 2012 poste amul woon benn problème euh, il était géré de manière euh, loyale et respectable mhm. les problèmes ñu tàmbali ci ba ñu nomee un DG bu tudd Siré ja aucune compétence euh, zéro xam-xam lenn kese ba tax ñu nommé ko c'est un frère de Arouna Dia bi nga xam ne ki ci campagne yu Macky Sall lii kese ba tax ñu nommé ko amul leneen ñu nommé ko nag bu jël entreprise bi commencé ko pasar pasare Euh, Siré Dia recruté na ba recruté ay ay sàcc yu nekkoon si marché Thiès di jaay portable ay sàcc mu recruté leen duggal leen post et les sénégalais di commencé yéemu. Mhm. bu fekkee ne envoyé nañ la sa colis euh, kenn sàcc ko ci biir poste bi donc Siré Dia <laughs> euh, effectivement am na y a des yoo xam ne ñu ngi yónnee ay téléphone wala dara ñu mu réer responsabilité post engagé. parce que recruter ba recruter ay sàcc yoo xam ne ils sont dans les de poste. <laughs> dañoo recruter ay sàcc yóbbu leen biir poste. et c'est très grave donc Siré Dia moom la ñu tuddee gap à Thiès ndax saa yu ñëw week-end dafay ñëw ay mallette lay àndaale xaalis parce que il faisait de la politique pour le président Macky Sall parce que il était question de d'attaquer Idy dans son fief il était de boobu c'est une gestion catastrophique en sept ans yoo xam ne wax dëgg yàlla ay milliards moo nax saay ci xaalisu poste euh, yoo xam ne aujourd'hui ba tey kenn ko kenn audité ko Euh, moom actuellement mu ngi Lonase. ñi ñu Bibi Baldé Bibi Baldé dama ne par éthique sax et par responsabilité moom sax waru woon nangu nekk DG ndax Bibi Baldé moo nekkoon le ministre en charge de la poste maanaam moo nekkoon chefu DG poste. Mm-hmm. dama dama jàpp dafa bokk si ñàkk jom. jamono yi mu yore communication ak. oui ministre de la communication parce que moo yor tutelle poste. man dama mm-hmm. pour man dafa bokk si am jom sax et même c'est inélégant ma diriger dara nekk ci kaw maanaam nekk chefu DG après ñu wàccee ma def ma DG ma nangu. mais xam nga tamit après dem na fi ministère de environnement ñëw communication. Mhm. Mhm. ne nag ah, du rétrograde parce que mu nekkee. Euh, mais tamit jiite euh, entreprise bu mel nii parce que xam nga direction yoo xam ne nii. Mhm. ak ay directeurs généraux yoo xam te nii. moo gën a neex ministre. par exemple directeur ARTP. effectivement loolu moom moo gënal ñu bari nekk ministre nangam. moo tax ma nag kon est-ce nekkul moo xew si. effectivement noonu la demee sax parce que hmm. waa ji ba mu nekkee tutelle di xool post gis na déjà luubal yu doy waay bu si Dia def <laughs> te dara fekk ko ci. mu gis avantage yu bëri yu nekk foofu. Hmm. il a pensé ut benn parachute am dem toog foofu jaax sori les projecteurs donc c' est de planifié lu mu def. Hmm. man euh, au delà de dimension ñàkk jom bi kese waaye bi dimension planification la ak jouissance bu mu ñëwee poste nag euh, aujourd'hui le problème c' est une politisation excessive bi ba mu nekkee DG ba léegi. Euh, il a changé même organigramme poste post la yoo xamante ne comme ministère xam nga créer secrétariat général andi sa ay nit yoo xam ne ñoom nga doon liggéeyal ba nga nekkee ministère andi un staff bi nga xam ne kenn du si postier euh, xamuñu sax problématique post yi donc lii lu grave grave bi mu bari loolu la ñëwee post boobu ba léegi euh, mel ni ku xeeb postier yi ndax jàpp nañu peut-être amul fay interlocuteur il fait du du matéisme léegi pour revenir nag léegi ci problème actuel bi nga xam ne à chaud ndax euh, ñaari euh, euh, audit yi yu ñu def en post finance benn bi agence Malick Sy ak centre financier dafa révélé benn bi un déficit de 700 millions benn bi un déficit de 800 million huit millions. donc ñaari effectivement soo ko boolee. Euh, milliard milliard mais avant boobu en mars amoon na benn mission bu gën a mag bi nga xam inspecter les CNE et CCP. Euh, CCP yi mooy compte courant ak CNE yi la caisse nationale d'épargne. il y avait un trou de plus d'un milliard bu fa nekk bi nga boobu tamit on avait utilisé à dessein ce appelle les MOD donc euh, mécanisme yoo xam ay genre mécanisme comptable pour travailler en attente sur des avance sur salaire yi nga xam ne ëpp na un milliard donc soo boolee lii yëpp c'est presque trois milliards en réalité donc lii nag li tax mu grave mooy que mën nañu comprendre sax gestionnaire bi xam dafa sàcc xaalis lekk ko daw on peut le ko ñu ko war a poursuivre jéem a saisir ay biens delloo xaalis ci entreprise bi mais ce qui s'est passé actuellement mooy ay fournisseurs de la poste ñu si bëri ay entreprises yoo xam ne dañu ko créé yàggul defagul sax 2 3 ans ay entreprises yoo xam ne ay xaritu DG ñoo ko créé wala ay jarbaatam ñoo ko créé wala moom coom mu créé ko jox ko ay militant ñii nii lañ commencé jox marché poste maa ngi dégg gars yi ay waxu yi dafa am règle ATP les règles dafa les marchés am na marché yu ndaw petit marché yi 1 million 2 benn appel donc euh, il crée de petits marchés di ko jox seen ay entreprise léegi nag li gën a grave mooy au lieu ñu sucré wu kese sax yem ci Euh, entreprise tampon yooyu ak entreprise mm. écran yooyu ak entreprise tappale yooyu dañu am ay ay déficit financier euh, yu ñuy am soxla xaalis au ñu dem banque lebi xaalis pour ñëw faire face engagement engagements à la euh, le DG daf leen defal daf leen pistolet pour que ñu jël xaalisu poste leen ko aal en attendant ñuy mën a def seen ay mbir suñu paree delloo xaalis bi en quoi faisant dañuy bind un chèque bi nga xam ne chèque bi les sans provision kooku chèque am amul dara amul benn xaalis ci biir compte mu jël chèque jox ko un responsable d'agence kooku jox ko xaalis ba en attendant léegi chèque pour justifier xaalis ba nga xam ne moo moo génn ci biir caisse bi et lii c'est tellement grave c'est abject c'est petit donc lii moo déclenché le DG de Poste Finance en l'occurrence Saliou Fagnor euh, ba mu gisee avec ces missions d'audit là mu yor rapport d'audit am sa réaction en tant que DG bu normal bu bu xam liggéeyam mooy que daf ko war a la police police convoquer les les responsables entendre leen ba pare ñu recouvrer xaalis bi lii mooy yoon. Mhm. il a saisi le DG de la poste Bibi Baldé euh, pour wax leen dafay yóbbu nit yi police moom moo ko dischargé ne ko bul yóbbu gars yi police bàyyi leen. on va essayer de régler on va essayer de voir comment on va régler ça. Mhm. par l'entremise de SG secrétaire général mhm. bon Saliou Fedior Euh, di obéir benn DG qui est politique avec logique politique bu exposé wu moom gouvernance am il n'a pas voulu le faire mu dégage responsabilité am mu yóbbu xaalis boobu nag mu yóbbu plainte yooyu ak kii de droit lii la DG poste méttiklu ndax dafa jàpp ne xam naa kan kan kan la ko yóbbul plainte bi. poste la police. à la police la ko yóbbu donc pour plainte boobu la DG post nag maire Bibi Baldé euh, def na de service wàccee ko et loolu tamit c'était illégal.

illégale. Euh, moom il parle de insubordination maanaam ñàkk dégg ndigal. Mm-hmm. ak ñàkk kóolute. si diggam ak euh, ki nga xamante ni moom mooy Salif Fajoor mi nga xamante ni moom moo jiitoon poste poste finance euh, ndax tamit lay yooyu noonu pour yow lay yu nu mën a téye la. waaw même loolu bu amee moom bu dee c'est un c'est un légaliste et tamit encore une fois dañuy gis ni le président Macky Sall ak ay nitam yëpp y a pas de légalisme maanaam ñii dañoo yepp waa Sénégal. bu doon dafa jàpp ni kii il est dafa am insubordination wala kii ñoom ñaar amatul confiance ci moom. Mm. c'est son droit su ko neexee parce que le DG de la poste mooy le PCA bi na convoqué le conseil d'administration bu leen convoqué joxe motif bi ordre du jour dama bëgg demet nangam gars yi voté ko gars yi ne xam namee mais il l'a pas fait donc lii nag dafay wane rek yàqamti gi mu yàqamti dàqalu ko dafay wane euh, caay-caay gi mu nekkee ak li muy nëbb ndax gis nga mag yi dañuy wax ne ku toog fu xasaw xunn doo bëgg kenn yëkkati la donc lii nag dama jàpp ni euh, c'est la goutte d'eau qui a fait déverser la vase waaye il n'en est pas à première parce que Bibi Baldé dafa war sax nekk DG de la Poste maanaam Bibi n'a pas le profil pour être un DG la post je rappelle que la Poste euh, structure bi nga xam ne dafa am ay école nationale am école multinationale la poste est une est une est une est un métier en réalité maanaam on forme des préposés des postes des agents techniques des postes des des contrôleurs des postes des ñii da leen ay actes pour ñu xam lan mooy poste bu ñu ko doxal dafa njëkkul nekk sax yoon sëñ Mouhamed ñuy parachuter un un un gars de de de de doon pour jox ko poste mu koy diriger loolu c'est pas sérieux dans les autres structures là loolu doo même à la RTS ñuy jël un DG bi nga xam ne xamul dara ci audiovisuel télé ñu koy jox ne ko dekkal DG RTS on ne le fera la police xalaatoon jël un non policier un civil di ko namee def ko DG de la police donc les corps yu am ay école dañu war a respecter école yooyu et encore une fois dañoo war a dépolitiser ces entreprises là dañoo war a egg ci def ay appel à candidature euh, nit yi suñu amee ay grade le grade qu'il faut les compétences qu'il faut l'ancienneté qu'il faut et le projet qu'il faut commission saytu ko xool ndax ki yell nañ jox ko ni jox ko ko donc post nag tumurankewul ay kàngam yi ko mën a doxal euh, ay administrateur des postes ñu ngi fa ñi xam ne dañoo am xam-xam am kóolute agent yi ñu xam leen man dama jàpp ni dafa jot euh, ñu delloo post au postier parce que ñu ko deful lekk y une entreprise maléfique autour du président de la République de démanteler lépp luy ressources yu nekk ci dëkk bi et les entreprises en font partie. d'accord loolu sa dina si mais la direction euh, du ministère de tutelle wala du ministre de tutelle de tutelle mi euh, Yankoba mhm. euh, mi nga xam ne dafa wax ne nañ delloowaat kii si ay droit am euh, Saliou Sadior wala Fadior loolu ndax tamit. le ministre n'est pas passé outre ses prérogatives wala ndax jàpp nga ne réaction boobu réaction bu normale waaw euh, ministre bi su demee ba génn ci presse di ko wax rek day wane ni kon loolu euh, waxi tappale la maam ministre boobu moom man ci ministre fenkat laa ko boole maanaam kii tamit accident moo ko andi si ministère kii dans un pays sérieux il devait pas être ministre dans un pays sérieux loolu sax nekk chef de quartier xam tamit Mouhamed le problème du Sénégal et et et la mesure est trop haute euh, wala boog trop longue pour les épaules. donc su ko waroon def en tant que tutelle. la tutelle mbirum télécommunication du loo xamante euh, mu euh, nekkee kenn xamu ko dans l' administration mais ku am jaar-jaar daan si liggéey si si privé. waaw xam nga ministre moom fonction politique la rek moo tax duñ ci werante mais c' que dafa am ñi nga ne amuñu le profil du poste léegi nag sama problème mooy quelqu'un bi nga xam ne tu as la tutelle technique mais suñ communication un ministre suy wax ak ñi nga xam ne ils sont liés euh, administrativement mais dañuy communiquer de manière administrative li mu def c'est du populisme tappale kese la daf ko war a bind da ko remettre ko dans ses droits ba pare daf ko war a yóbbu daf ko war a waxaale au conseil des ministres donc bu génnee si presse bi di amuser la galerie man jëluma waxam au sérieux en réalité je dis que nag Euh, ku ku normal ak ku ñàkk normal ci am y violation des statuts de Poste Finance euh, la di DG Poste Abdoulaye bi Baldé def tegu ko ci yoon tegu ko ci dëgg et lii ñëpp a ko war a condamné vigoureusement pare fexe sax euh, jëlee ko ci post bi pendant qu'il est encore donc wax dëgg yàlla Saliou Fedior man jàpp naan Sénégal dañ ko amal njukkal dañ ko war a ñaanal yàlla ba pare ñaan di am ay DG yu mel ni moom ay yi xam ne nekkuñu di tappale DG yi xam ne lépp luy alalu askan bi bu dee dërëm la sax fu mu mën nañ ko jéem a génnee pour delloo ko ci gafa askan bi man lii du war a encouragé la waaye pas de bribe bi xam ne ne président moom mooy nommé moom mooy dégomme aussi euh, saa su ko su ko soobee euh, lan nga jàpp ne moom mooy nekk attitude am euh, si li te ni moom mooy problème bi taxaw ni sa logique c'est une logique politique fàttalikul en 2014 dafa waxoon carrément ne moom képp ku gañewul sa localité ci DG ministre yi nga xam moom la ngemboon daf lay demee te lay wàccee. donc kon président santul ay DG ñu liggéeyal ko santul ay ministre tam ñu liggéeyal ko actuellement le le DG de la poste suba ak ngoon guddeeg bëccëg mu ngi Kolda ndax euh, c'est un responsable politique à Kolda. li tax sax mu nekk mu nekk DG wala mu nekk ministre. mais waa Kolda ñoo ko ñaawlu gars yi bëri ñu fàtte loolu parce que kii il a en tant que ministre de l'agriculture et soo duggee ci gouvernement Boun Abdallah Dionne donc te li ko loon mooy magu Kolda yi ak màgget yi ñu def délégation la ñoom c'est pas normal seen dëkk amul ministre xam nga lii c'est grave bu ñu demee sama ministre sax ñu koy def ay localité kii il est entré par accident au gouvernement donc chaque instant kon lu muy doxal yëpp politique la autoposte yi ñu ngi koy jël di ko politique yi autoposte yi xam ne ñoo doon yóbbu courrier yi moo ñoo doon jox agent yi ko dañ koy jël di ko politique su ngoon guddeeg bëccëg mu ngi dem bi nag à la un agent poste mënul gis la DG pour mu gis ko problème bu ngand la ndax chaque fois ay politiciens géwal yeeg euh, militants yeeg euh, gone yeeg étudiants yeeg c'est que ñëppay ñëw di rang pour gis la DG maanaam c'est un DG qui n'a pas le temps de l'entreprise en réalité et man wax nag ni suñu bëggee dimbali des entreprises publiques au Sénégal yemul ci post li xew post moo xew port moo xew fu ne moo xew RTS moo xew dans toutes les structures publiques on a des DG xam ne dañu dem sax ba créer ay quotas di ay ministres pour ñu mën leen a may jàmm je rappelle fii ba Cheikh Kanté au port defoon sax ba defar ay liste première dame pour première dame jox ko ay tour yu mu ko war a embaucher defal ko ay liste pour tous les ministres ak tous les grands ñëpp ñu jege président frère u président jabaru président ak ak euh, bras droit président ko def defoon liste na la boo amee ay protégé andi ma jël leen ñii di jël seen ay doom di jël seen ay jarbaat seen ay gel sax leen di jël nga xam ne kon Mohamed lii c'est grave euh, nu ñu yoree suñu entreprise publique yi donc kon coow la muy benn il faut que euh, il faut qu'il y ait CDP maanaam des contrats de performance yuy teg un DG bu ñu la joxee entreprise ne la nag dañ la jox tel niveau la nekk da nga ko yóbbu tel niveau Bill Baldé ba mu duggee poste ba léegi poste sa sa situation est encore beaucoup plus exécrable ndax Bill Baldé c'est un champion de ce qu'on appelle je vais pas dire qu'il fait c'est pas de la gestion suy wax entreprise bi nga xam ne mu ngi am ay problème ñuy wax rapport off nag génn ñuy wax nangam nangam wax naan poste bi ñuy xaat comment le viabiliser parce que dafa am ay jafe-jafe. yow nga ñëw au lieu nga jéem a xool non ba pare gën a sàmm nga jël di embaucher ay nit par ay milliers par ay centaines ngay embaucher dugal. Euh, créé un cadre institutionnel bi nga xam ne à ta guise mel ni ku nekk sa ministère jël xaalisu poste di def lo neex. c'est parce que kii il n'est même pas conscient des enjeux de la société postale et loolu moo triste et dommage dégg naa ko nag ci presse bi muy wax waxu ay mécanisme de de crédit yi nga xam ne ça montre lamentable. Voilà, parce que ñu ngi doon si benn logique de créer même une banque postale. oui loolu moom c'est un projet bi nga xam ne jiit daf bii ñun man maa ngi fàttaliku rek ñun sax ba ñuy dem COFEP maag sama benn promotionnaire El Hadj Ndiaye moom actuellement mu ngi à Poste Finance donc moom il travaille sax sur le rôle de la Poste sax ci wàllu inclusion financière donc ñu Poste yàgg nañu xalaat sur le secteur euh, bancaire parce que dans beaucoup de pays il y a des banques postales et euh, changement institutionnel boobu postier bañ ñu ko ni on a travaillé sur ces questions lañ ci produire bu ñu woowee dañuy andi suñu euh, ni ñu ko bëgg defee jéem a xool nu ñu daggee une partie très fructueuse de de pour jox ko ay multinational tubaab yi nga xam ne dañoo ñëw ànd ak frère président pour jéem a saax saaxee lépp lu baax ci dëkk bi postier la ñu d' accord ñu d' accord ñu loolu. Ah la BDK. à la Banque de Dakar administrateur la. BDK a un projet jéem a toutes les postes finance yu nekk dans la sous-région commencé na Côte d'Ivoire dem na dans les zones di xool ñoom Mali ak ñoom Togo ak ñëpp Sénégal daf ko intéressé trop donc ñu ne lu ñu d' accord mooy ñuy brader le secteur public bi nga xam ne kii kii kii bu am solo lii la ñu defoon Sonatel Sonatel lañu ko jël bradé ko bëgg ko jox ay ay tubaab yi nga xam ne aujourd'hui même enseigne bi sax yàq nañ ko ba ñëpp Orange rek la ñuy wax wax du Sonatel donc kon aujourd'hui la poste euh, sëñ Mohamed poste dafa nekk dafa nekk lu rëy rëy may fàttali ne bëri na fi aujourd'hui ay ay biens ay kër ba ci biir ville biir ville Fann partout yi nga xam ne aujourd'hui c'est des maisons à plus de milliards yoo xam ne euh, kër yooyu post moo ko moom depuis temps PTT la administrateur tubaab bi ñoo ko fi ko moom état bi mu ngi jël yëpp di di ko jaay di ko foowee bëri na ay comptes yi nga xam ne au niveau du trésor public des comptes spéciaux yi nga xam ne poste dañ ko ubbi loon dañ ko depuis temps PTT avant indépendance Sénégal poste di denc ay millions foofu xaalis yooyu ñu koy nax saayal de manière grave te jëriñu si poste donc kon poste dafa am patrimoine bu rëy rëy déjà bu mu am muy benn waaye poste dafa am ay compétences ak ay capacités yi nga bu ñu leen mettre à contribution ba pare mettre leen en synergie agrégé leen on peut avoir bi nga xam ne si waxuma si top 10 mais top 5 yu gën a mag Sénégal mu lañ ci bokk surtout à la donnée voilà mais loolu est-ce que du du gën a jafe jamono ji j'ai même envie de dire est-ce que euh, jamono jamono raw ko dañu xoolee fu mu toll ni concurrence bi euh, gën naa takarnaas mais gisuñu benn mbir boo xam ne ni benn jéego boo xam ne ni ñu ngi koy teg ngir dabu. waaw poste temps weesuwul xam nga tax may weesuwul parce que poste ñu bëri ñu koy analyser dañu koy analyser sous l'angle la poste aux lettres maanaam ay lettres ñuy envoyé. Mm-hmm. poste activité am loolu kese. loolu lu ndaw la ci activité am te loolu mission service public am moo ko sas mu nekk ci loolu may fàttali ne on a un secteur postal aujourd'hui bi nga xam ne y' a presque 17 moo ci am la mission service public maanaam moom mooy opérateur public bi bi nga moom la état di fay redevance bi nga xam ne pour mu taxawal ko askan bi poste am na un code il y a le code des postes bi nga xam ne qui a été voté avec la loi euh, du janvier donc am nañ un code des postes am nañ un un un acteur bi nga xam ne moo censé réguler la poste muy ARTP. mais heureusement ARTP sa dimension télécom moo jël tout son travail ba secteur postal bi daf ko xaw a délaissé donc aujourd'hui la post c'est c'est le colis c'est le commerce en ligne le commerce électronique c'est c'est c'est service les services financiers c'est la c'est une banque en gestation bu war a ñëw bi xam ne avec un euh, un taux d'inclusion financière bu xaw a ndaw dans la dans la zone UEMOA bi xam ne poste mën na contribuer ci yéegal sa taux là avec des offres yoo xam ne des offres sur mesure des niches yoo xam ne que poste aujourd'hui ba léegi exploité wu ko des des des des entreprises de téléphonie parce que dafa am dafa am dafa am devoir et dafa nekk dans des dynamiques de diversification bi nga xam ne mooy li Igor Ansoff waxoon la diversification conglomérale donc poste dafa am ay secteurs yu mel ni téléphone yu war a dugg euh, avec les les MVNO les mobile virtual network opérateur poste dafa am ay secteurs d' assurance yoo xam ne poste dafa ko war a taxawal mais poste suñu jëlee l' activité filialisé ko correctement doxal ko dama ne poste dina andi contribution yu gën a ngand sax aujourd'hui li nga xam ne Sonatel la wala kenn mu koy andi. mais à part gestion yi nga ni wax nga ko fi kon lan moo tax ba léegi noonu on a l'impression que sur place la ñuy def. c'est normal euh, état def ko priorité parce que état dafa am projet wu ray post avec sous sous su impulsion du FMI muy benn et secondo joxuñu poste à des gens yi xam ne dañoo jug pour ñëw defar ko. naa la Siré Dia ba ñu koy nomee nommé ñu ko pour mu defar poste dañ ko nommé sur des accointances politiques ba ñuy nommé Bibi Baldé nommé ñu ko pour mu defar poste dañ ko nommé kese pour mu pour mu pour mu pour mu calmer un peu ba pare ñuy continuer euh, exploiter maanaam la post vache à lait lañ ko def maay ngi fàttaliku même ci élection yi passé ay 2012 avant 2012 sous Wade euh, élection yi dañ doon jël xaalisu post di koy yóbbu directement palais duñ ko sax verser trésor ay saako ay dépêche dañuy def xaalis ak ay autopos yóbbu ko directement au palais parce que Wade avait besoin d' argent pour ay alliés politiques am nga kon dafa am lu fi yàgg lu fi nekk li nga xam ne dañoo nekk di foowee une entreprise bi nga xam ne entreprise boobu elle est rentable waaye ñu ngi koy ñaawal di ko kukkali ba ñu bëri yaakaar ni entreprise bi doxul suñ ko ko sax ça rime avec vétusté ça incompétence et ce qui n' est pas à la poste de vaillants cadres ñu ngi fa de très grands intellectuels ñu ngi fa des personnes yoo xam ne euh, ils ont un sens élevé euh, de la responsabilité bu leen bu leen mettre devant le fait accompli ils vont jouer leur rôle. et man euh, confiance en eux. sànq am na loo wax mu def tel que sama xel une volonté de tuer la poste. oui de concert avec le FMI mais lan mooy doon jubluwaay bi. xam nga depuis les années quatre vingt avec ce qu'on appelle la dynamique maanaam la vision ultralibérale wala boog le consensus de Washington le FMI. dafa am ma vision dama koy woowee sax le fonds meurtrier international man FMI gëwuma ko gëwuma ay directives am gëwuma ay suggestions am gëwuma ay recommandations am dafa amoon vision wu démanteler ce qu'on appelle le service public euh, fa la ñu amee les plans d'ajustement structurel FMI moo rey euh, tabax hôpital moo rey tabax université tabax école soo seetloo année 80 ba 2000 on a fait du place maanaam dañu nekkoon dañu ajuster structurellement amuñu droit investir ci beaucoup de choses yemul ci tere ñu ay investissement dañoo jàppoon da ngay dugal xaalis mais du am retour effectivement FMI il travaille juste à à que ces pays là remboursent la dette lii mooy la c'est une fabrique de la pauvreté comme dit euh, Pape Demba Thiam donc le FMI est un fonds qui travaille pour appauvrir davantage les pays du Sud donc cooli mooy euh, interdire les investissements muy benn mais secondo Euh, xool nu ñu mën a démanteler ak démembrer le service public en réalité ci la nekkoon di jaay ak di privatiser l'ensemble des entreprises ci la ñu sax daggee OPT parce que y avait l'OPT en 1960 y avait l'office des postes et des télécommunications ñu mag Sonatel benn entreprise la ñu woon poste Sonatel c'était une même entreprise on formait les mêmes agents dans une même école di former les agents techniques des postes ak les agents techniques des télécoms ATT ba tey jii Sonatel ak poste yi ndax benn même bâtiment la poste moomoon ba ñu diviser en 1985 ñu woowee la balkanisation on a créé Sonatel suñu leen jox yenn partie yu ndaw ci ay locaux ba pare leen ay agents yoo xam ne ñu wax ay bras cassés agents yoo xam ne ñoom la poste soxlawul woon ñu gënoon ay màgget ak ay ñu mënul liggéey lañ joxoon Sonatel parce que Sonatel était né dafa dafa waroon dee. fan la mujjee euh, on a privatisé presque toutes ces entreprises là poste kese moo ci des parce que aujourd'hui 100 pour cent état Sénégal la moom FMI nag daf si teg bët te am na ay partenaires yu bëri au niveau Espagne. en France euh, ñi nga xam ne ils sont intéressés par la poste mais ils sont pas intéressés par toute la poste li intéresse ñoom mooy le service financier de la poste ndax la poste fait un service financier un service postal mhm. le service financier mooy chèque postaux yi ak caisse d'épargne bi parce que bi genre embryon de banque la et ils ont le meilleur réseau du Sénégal ndax poste kese moo mën a taxaw waat ne suis présent dans toutes les communes du Sénégal fépp yenn entreprise am na ay fonctionnaires yoo xam ne dans si àll ba dañuy jël un jour pour dem fay ko ci dañuy pass dem ville pour mën a fay seen salaire un jour ñëwaat lii yëpp poste mën na régler tous ces problèmes là bu ñu ko def banque encore une fois bu ñu ko defee banque nag on va lui donner la moo tax j'ai été surpris d'entendre monsieur le DG de la poste monsieur Baldé euh, parler de crédit de la poste comme si poste entreprise bi xam ne au sens de la loi bancaire mën a def crédit ce elle n'est pas un établissement financier bu mën a def crédit la poste ne fait pas de crédit donc su amee ñu jël xaalis di ko leble di ko lebal ay fournisseurs et même di ko lebal des agents yi xam ne ñoo censé contrôler parce qu'il des agents de la poste qui soo impliqués des gens yi xam ñoom ñoo war a contrôler bureau yi ñoom sax dañu leen leblaale xaalis bi ñu noppi donc kon lii c'est un lii c'est un circuit de malfaiteurs et de voyous yi nga xam ba pare ndax jàppoon ne loolu tax mbir mi gën a complexe ce risque là bi nga xam te ni mi ngi fi que bu ñu toppee mbir mi mu àgg sax à des niveaux insoupçonnés noonu la demee sax en réalité parce que au niveau de la euh, les deux agents là muy la monsieur Alex Manga ak euh, ak euh, Faye ils n'ont pas seulement lebaluñu xaalis bi ay fournisseurs kese lebal dañu ay hauts cadres yi nga xam ne de la poste yi xam ne ñoom ñoo yor sax yenn direction yi nga xam ne ñoo war a contrôler agence yi Euh, lebal leen si xaalis xam nga ku nga xam ne yow yaa war a contrôler jàppaat. kon mbirum contrôle euh, interne bi que du am lu fa sooxe. am na lu sooxe am na lu sooxe. parce que kon lan audit externe la. du audit externe pourtant euh, audit la bi nga xam ne post finance parce que post finance dafa am une autonomie. D'accord. dans son dans la mhm. uteeg la poste parce que léegi. Mhm. il faut ñu xam ne c'est un groupe. Mhm. la poste dafa am direction bu ñuy wax DIPA. la direction de l'inspection postale moom dafay audité mais nag poste financier dafay def ay auditam ay auditam léegi nag quand c'est pas coordonné nag li mooy waral des fois euh, même saay-saay bu amee fenn euh, fu amul fépp ay saay-saay da ngay feeñ donc yàllaa na moon mu feeñ rek pour wane ni post dafa nekk ci benn dynamique de tong-tong ñu ko nekk instant la poste est à genoux euh, balaa ñu koy xaar muy egg terre nag il faut nous tous réagir ndax poste Sénégal yëpp ko bokk. même syndicat bi sax réagir na. gis naa benn waaw gis naa benn bataaxal boo xam te ni bind nañ ko. bu hmm. gudd gudd. et l'amicale des des de l'école des postes euh, ADEP yoo xam ne ñoom ñaar yëpp vraiment c'est des structures yoo xam ne au moins ils sont debout ndax li ñuy wax ne yàlla du tëj bunti palanteer au moins am na ñenn ñi xam ne ils sont debout ils jouent leur rôle et et responsabilité. ñu hmm. leen siy jaajëfal leen encourager après di woo ñëpp ñu suivre ndax euh, xeex mbon xeex injustice xeex corruption. xeex caay-caay xeex jaay doole waxuma sax responsabilité professionnelle suñu diine daf ñu ko imposer ñun suñu diine. Mhm. suñu ay aada ak suñu ay valeur daf ñu ko imposer donc on peut pas se dédouaner. mais yow ndax ragaloo tey jii comme yow agent au poste nga ñu topp la pour violation de l'obligation de réserve. mais parce que ñun amuñu obligation de réserve <laughs> ñun nous sommes pas un stratégique. dans la nomenclature de l'État nous sommes benn genre parapublic nous sommes une société nationale mhm. donc nous n'avons pas d'obligation de réserve en tant que cadre nous sommes pas dans une dynamique li may wax tamit c'est des choses yoo xam ne c'est ils sont je révèle pas de documents officiels de la poste génne donc nag j'ai documents j'ai tous les documents sous instruction du directeur général des nervis avec des armes blanches nag nga xam ne lii violence bi sax avec des gens qui n'appartiennent pas à la poste qui travaillent pas à la poste violence bi sax déjà que Bibi nous a amené dans une maison bi xam ne yoo xam ne c'est une famille postale ñëpp ay xarit lañ ñëpp ay nit lañ ñëpp a àndandoo euh, lii rek déjà war na tax bii bi dañ ko war a post poste bi ma dama jàpp ni le chef de l'État président Macky Sall euh, pour une fois ne man dinaa ko defal un appel euh, solennel mooy que mu relever Bibi Baldé ba pare jox poste à des administrateurs postaux qui sont là-bas sur place euh, qui peuvent redresser la poste avant deux trois ans euh, parce que redresse redressement poste c'est possible. d'accord léegi dañuy avancer tuuti wax ma léegi ci wàllum transparence ak transparency internationale nga xam te nii mhm. mi ngi soupçonné euh, guerre ci yenn marché yi nga xam te nii dañ koo jox yenn multinationales étrangères yi ci wàllum pétrole bi fii nii ci Sénégal mhm. ndax yow loolu lu la bett la waaw ba ñuy wax ci wàllu ger boobu sax transparence internationale waxagu ci ba ñuy wax ci guerru euh, bloc yooyu même enquête BBC bu jigéen boobu defoon lu euh, mu tal sax maa ngi fàtt turam defagu ko kii sant Jones waaw Jones Mayli Mayli xam Mayli Jones ba muy def enquête am ñun dañoo wax ci loolu avant moom mais kenn dégluwuñu mooy li wax sànq rek la vérité sonne étrangère le plus souvent dans ce pays ñun dañoo taxaw sax groupe bu tudd Petro-Tim Monde bi nga ne ñoom Cheikh Sadibou Kébé euh, ndaanaan yu mag yooyu ñoom Ahmed Bayla Diop mais ñëpp ñoom ñoom Baba Aïdara mais on a fait des lives et des lives et des lives sur Facebook pour xamal sénégalais yi ce qui est en train de se faire euh, à leur dos sur les blocs yu nekk Sénégal boobu may ne waxagul euh, Ousmane Sonko bind na livre ci loolu bien avant ñëpp di wax mais ça n'a pas fait grand écho Clédor Sène dafa ci liggéey bu extraordinaire bi nga xam ne jamono boobu sax ñu bëri dañoo bañ dégg ko dañ koo déglu donc euh, pour dire que avant transparence kon nous sommes gestion dans li xew nag mooy sàcc dafa am y a dafa am. il y a eu de la corruption Euh, Sénégal fii y a eu des plaintes ñoom Mamadou Lamine Diallo honorable Mamadou Lamine Diallo nga xam ne man kenn la ci député yi xam ne député yu gën a honorable dans ce pays gën a remarquable fii au dem porter plainte. am na tam am moom du nit man jàppee ma ko nit ko du ma sax wax ay pour dire que rek. non mais du nit dafa dul nit man de même bu avocat mais ko du nit. xam nga ah. tamit xam nga dans un pays euh, Mohamed on a besoin de tout on a besoin de ay nit on a besoin de ay xar ay mbaam ay fas on a besoin de tout quoi pour faire un pays. Mm. donc man nit yi nag moom mën naa bëgg naa si ñoom mais mais kooku bokk ci def liggéeyam rek. donc pour dire que ko si niveau est ce que du du a jéggi dawee tuuti. waaw waaw euh, naa si ñëwaat naa si ñëwaat ah, léegi. pour dire que noo koy foofu nekkul ci rek daal. pour dire que li am <laughs> solo mooy. y a eu du y ya eu y a de la corruption et loolu on l'a prouvé et reprouvé à maintes reprises xam nga mbir mi euh, man da waxuma sax Aliou Sall c'est pas Aliou Sall kese Aliou Sall innocent la. problème bi dëgg-dëgg sàcc gu mag gi ci dëkk bi mooy Macky Sall il s'appelle Macky Sall Macky du n'importe kii Macky Sall mbiru suuf a jàng yemu ci ñu yóbbu ko mu liggéey Petrosen bu mu ñëwee Petrosen euh, banque de données bu Sénégal moo moo ko doon moo nekkoon directeur la banque de données du kon ressource yu nekk Sénégal bi yëpp Macky ci loolu loolu moo nekkoon liggéeyam di ko xool di ko saytu. yor très bien mu xam lu nekk lan moo am fu nekk après jël ko nommé ko DG Petrosen. muy doxal entreprise bi ñu jël koy yóbbu ko def ko ministre de l' énergie et des mines muy administre secteur bi donc Macky Sall c'est un initié maanaam kon su defee ñaawteef moom loolu ñuy wax délit d'initié lii haute trahison parce que kii li muy def kon du ñàkk tayeef wala ñàkk xam xam na bu baax li muy def ce qui s'est passé nag leer la benn délinquant bu mag bu ñuy wax Frank Timis di sàcc bi nga xam ne il a été condamné dans beaucoup de pays sàcc si ay euh, tey jii au Sénégal il n'est pas euh, encore. Euh, établi juridiquement que moom def na ñaawte Sénégal. waaw sa Sénégal nanguwul àtte dossier bi ba ñu porté plainte yëpp procureur lan la wax fii am na manifestation bu ñu def ci wàllu ci wàllu pétrole bi. Mhm. professeur procureur si moom woote na moom ne appel à à appel à. à témoin mais c' est grave loolu dafa instruire ko que le frère du président le président Aly Ngouille Ndiaye le grand magouilleur li tax lan moo xew. Franck Timis il a été condamné du Sénégal alors déjà par éthique. un état sérieux du def affaire avec quelqu'un bi a xam ne un délinquant qui a été condamné c'est pas le seul même Ovidiu Tend a été condamné euh, pour ay corruption ak blanchiment moom lañ jox blogu Saloum bi ak mm-hmm. blogu Sud Sénégal mm-hmm. moom tamit deux blocs lañ ko jox tamit euh, sàcc la te truand la donc quest qui s'est passé kon en waa jooju dafa ñëw Sénégal pour bëgg a am ci contrat sénégalais yi l'article notre code le code minier du Sénégal dit que pour ñu jox la il faut nga justifier d'une capacité technique et financière bi nga mën a def bu ñu la jox bloc lii mooy wax ci euh, Franck Timis musul am expérience maanaam musul am bloc ci àdduna ba mu daj musul si liggéey muy benn ñaar entreprise Timis si musul liggéey si wàllu musul am contrat ci loolu amuloo sax xaalis bi am déjà amuloon bi moo tax après mu dem ut lu mu jaay moom c'est que euh, maanaam caay-caay kese la doon def naa expliqué lu tax may caay-caay la doon def mm-hmm. Euh, comment il a procédé il a fait quelque chose bu extraordinaire mooy li ma sànq ci poste rek dafa ñoo jël frère président bi Aliou Sall def ko waayam di ko fay euh, embauché ko pour mu créer euh, Petro-Tim Sénégal. Mhm. bi nga xam mooy filiale am fii Sénégal. Mhm. mu koy fay vingt cinq mille dollars chaque mois. di ko defal ay virements ba pare di ko trois millions de dollars en matière d' action ci entreprise bi nga xam ne moom laa lay jox en en contrepartie. sa frère ba ko moo yor signature yi moom mooy joxe décret yi nañ ma defal décret comme ça ma am affaire bi comme ça après nañ ci bàccoo ak yow lii moom dañ man dama dem ba mokkal tous ces textes là parce que ci live live live si boobu bañ ciy wax Sénégal kenn dégluwuñu mais contre signé contre signé Euh, par le premier ministre d'alors bu Abdoul Mbaye même bu nekkee nee na euh, si présentation bi. ah euh, li nga si wax ak lii dëgg du benn. waaw amu ci benn responsabilité parce que moom si moom moom mën na évoquer ñàkk xam amu ci benn responsabilité parce que premier ministre amul responsabilité kanam président muy benn. et pourquoi mu amul si ñàkk moo ñàkk responsabilité IGE dafa def enquête avant Macky Sall signé IGE def enquête jox ko rapport article 2 IGE daf ko wax ne ko contrat bi leerul te baaxul Sénégal waroo ko signé. Macky Sall jël rapport IG bi teg ko ci suuf bureau ba pare signé ko donc kon Macky xam na li muy def kon kon lii du erreur du ñàkk xam contrat euh, rapport IG wala jox ko Abdoul Mbaye jox ko ñeen ñi nga xam ne ñooy pourtant moo tax ma ne seen responsabilité ñoom bokku ci. léegi nag entreprise bi xam ne ko créé euh, sëñ Mohamed jox ko marché euh, doom ji moo mag yaay ji en réalité. ndax. waaw loolu décembre mais loolu ñoo am nañ si explication am na soo ko jëndoon ba ne dafa mel ni ku bëgg a taxawal sa télévision. lijjanti licence ba pare boo amee licence ba pare après si ngay dem taxawal maakaan yi ak yooyu. xam nga loolu loolu tamit. bloc pétrolier Saint-Louis offshore profond ak Kayar offshore profond nga xam ne en matière de de de de de de de de de volume. maanaam lu ex lu important wee à ce niveau là wala ñu ko jox un un affairiste amateur bi xam ne mosul am marché. mosul liggéey ci wàllu boobu amul sax moyen ñu koy jox pour mu am ci dara dafa sérieux maanaam la signature de Macky Sall ci ci décret yooyu ak euh, Aliou Sall bi xam lañu jël def ko administrateur jital ko pour mu mën a liggéey moom pour jox leen euh, marché yi dama jàpp ne Franck Timis xaritu Macky Sall la mook Macky Sall ñoo àndandoo tax Macky Franck Timis mu ngi si ñuy wax les e TNC. mais ku mel ni Pierre ate Atepa moom nee na moom moo fi indi Franck Timis. te rëccu waaw mais Pierre Goudiaby moom qui est-il dans ce pays-là Pierre Goudiaby c'est une personne propre waaw mais moom en matière de d'honnêteté ak de probité loolu lañ ko xamal Pierre Goudiaby ñun amuñu affaire ak moom affairiste la kese buy xam ne ko jox suñu jumtukaay a ay contrat dama ne état Sénégal amul droit di institution de contrôle of nag def rapport ne ko lii baaxul ba jébbal ko procureur IGE saytu ko ne lii baaxul Sénégal waroo ko signé mu outrepassé loolu yëpp signé ko pare jox rakkam moo ko rakkam ni si lekk xaalis dama ne kii lu mu def c'est tellement grave et Macky Sall dëgg yàlla moom xam nañ mënul rëcc heureusement nag euh, moo tax transparence ñu koy ñu koy bégee heureusement que Sénégal elle a une justice bi nga xam ne kii est couchée état Sénégal fii amul justice justice bi Macky Sall moo ko téye moo ko moom mooy convoqué ko neex mooy tëj ko ko neex waaye le monde ne fonctionne pas si comme Macky Sall ne fonctionne parce que ba ñuy def euh, liggéey boobu Franck Timis bi jéem na jaar parce que jënd ko mënu ko amul capacité technique yi ni financière daf ko jëloon kese pour def rétrocession am ci ay royalties donc jaay na ay wàll Comos Cosmos énergie. Mhm. Euh, 60 pour cent jaay tamit BP British British Petroleum nga xam ne nga Angleterre tamit ay wàll. léegi nag dëkk yi nag ñoom dëkk tubaab yi ñoom dañoo am euh, règle ak ay lois yoo xam ne lois yu ay lois yu la donc euh, juridiction américaine elle est compétente si question bi ndax. lépp luy kon la ñuy wax la FCPA yi yi nga xam ne mooy de foreign euh, euh, corruption euh, act nga xam ne moom mooy lijjanti tout ce qui est loi c'est la loi contre la corruption képp ki nga xam ne entreprise américaine signé nga ak moom contrat ba pare ñu ger ci ay agent public am nga droit porté ko États-Unis États-Unis dañuy dañuy dañuy defal enquête dañuy jàppaate képp ki nga xam ne entreprise bi nga xam ne siège am États-Unis la nekk. États-Unis elle est compétente pour mën a def enquête wala ba jàpp la képp ki nga xam ne sa transaction sa tu fait en dollar parce que seen loi bi ñoom c'est une loi bi nga xam ne qui a une portée internationale maanaam loi bi yemul États-Unis hmm. donc kon les transactions ont été libérées en dollars États-Unis ils sont compétents donc transparence nag yóbbu na six dëkk yëpp yi xam ne qui sont concernés parce que waa ji c'est un Euh, Roumanie. porté ko plainte il est australien c' est austro-roumain on l' a porté plainte en Australie pour attendre dossier en Australie. porté ko plainte Angleterre mooy baasam porté ko plainte États-Unis ndax États-Unis transaction yi c' était en dollars porté ko sax Malaisie parce que boo booyam bi ko doon liggéeyal muy Eddie Wong nga xam ne mooy affaire bi nga xam ne ko tamit booy Macky Sall la ñii ñëpp ñoo ñoo bokk benn group en réalité dossier bii bu leeree. ñëpp nga xam ne Macky Sall mooy sàcc bu mag bi. mais yéen ñëpp ay sàcc yu ndaw mais yéen booy naan porté leen ko plainte yéen ñan la yéen. ñëpp maanaam la société civile sénégalaise ñoom parce que ñoom Ousmane Sonko Ousmane Sonko wóor nañ ko fii ambassade États-Unis pour entendre ko bi nga xam ne le département de la justice américaine ñëw na fii Sénégal pour déglu Ousmane Sonko. on on l'a convoqué donc ay sénégalais qui se sont qui se sont qui se sont réunis ñu bëri dem nañ si dëkk yooyu ñoom parce que c'est c'est la diaspora sénégalaise ñoom ñoo porté plainte Macky ak ak rakam loolu mu ngi suivre son cours euh, Trump ba mu fa nekkee dafa xawoon bloqué ndax Trump euh, dafa doon privilégier les les les les entreprises américaines dafa ne il va protéger tous ces entrepreneurs ndax America First la gëmoon. gis nañ li xewoon nag. donc moom euh, corruption bi moom moom moo retardé woon dossier bi. Hmm. mais ba Trump demee nag ak l' administration Biden. mais xam na ne il est dans sa droit ndax euh, moom mooy moom mooy problème bi ndax moom moo am xam-xam bi. Uh-huh. moom moo comprendre euh, enjeu yu nekk si suuf suufu Sénégal. Mm-hmm. moom moo signé tamit contrat yi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla sénégalais man jàpp naa loolu du ñu ko baal. mais tamit euh, ban xam nga Sénégal dëkk bu souverain la même bu nekkee ne dafa def jokkalante si ay mbir yoo xam te dafa laal yeneen réew. Mm-hmm. mais après man question bu am envie posé mooy la justice américaine fan la mën a yem si mbir bi ndax buy dóor. entreprise américaine yi nga xam te ni ñoom ñoo contracté au Sénégal lay dóor wala dóor boobu ndax mën na àggaale ba si réew mi moom ay sanctions yoo te ni koy teg état du Sénégal comme ni nga koy defee ak yeneen réew. leen France xanaa moo gën a puissant juridiquement moo gën a puissant Sénégal Sénégal moom dafa dul sax pays ndax France sax au moins dans le forum des nations il pèse quelque chose donc tout agent public euh, loi boobu c'est loi que les États-Unis loi boobu dafa habilité États-Unis à traquer dans une portée internationale ñëpp ñi nga xam ne dañuy corrompre ak ils sont corrompus te li wax dëgg yàlla euh, États-Unis jàpp nañ ba jàpp ñun député sénégalais Gadio. Mm-hmm. Cheikh Tidiane Gadio waaw jàpp ñu ko tënk foofu. États-Unis faale ñu ay député ak ay rakk président ak ñaata rakk président coow mooy enquête bi muy continuer son cours man maa ngi maa ngi njort ak di yaakaar ni la pression bi elle va se faire très haute. Mm-hmm. que gars yi dañu bàyyi mu sedd. et ñu bàyyil mu sedd la justice américaine ira jusqu'au bout. mais et su demee jusqu'au bout Sall bi euh, Aliou Sall mënul mënul mucc. même bu dee maga ma ko utilisé mais moom génne na sax kaamil waat wax ne lépp li ay nduubal ñu koy jiñ dara amu si. waaw xam nga loolu ñaax xam-xam fa la weesoo ñun sax alquran ñun islam sax lay wax ni moom dafa jàngul diineem. mais mais yow ndax diine moo mais yow kaamil di waat. mais yow en tant que jullit est-ce que nit bu waatee rek doo ko jox présomption. Euh, de bonne foi. absolument ba ba ngay gis ba ba ngay gis leneen. absolument pas moom li mu waatee sax dul waat jël kaamil di waat kaamil kenn du ko waatee donc yenn sax kenn ci képp ci yéen ki nga xam ne dafay waat na waat ci yàlla wala mu noppi donc mu def sax déjà du ñun loolu ça nous engage loolu c'est une communication dans le sentimental et l'émotionnel Sénégalais nag di leen yàgg jàpp ci wàllu émotion di leen nax leen fooye ñun loolu loolu yëngaluñu waxuma ka kaamin bi na ba ci kaaba gi teg loxoom ci kaw kaaba gi xam ne dafay fen ndax les virements sont là Euh, agritrans mu créé ak euh, virement yi xam ne Franck Timis defal na ko ko Franck waxuma sax ci wàllu lépp même en matière fiscale moo tax sànq man la il est dans des dans des ce qu'on appelle des ETNC des états et territoires euh, non coopératifs mais est-ce que ku condamné si beneen réew day obligé Sénégal pour que mu jàppee ko ab délinquant waaw un état sérieux képp ki nga xam ne dañ la condamné beneen réew ci ay waxu corruption ak waxu trafic de drogue état Sénégal état bu sérieux la warul def ak yow affaire dafa mel ni comme entreprise bu sérieuse képp ku ñu condamné pour sàcc nga am casier judiciaire booy ñëw andi concours ne la casier judiciaire pour xool ndax doo délinquant boo ko nekkee war du jël sa dossier loolu mooy sérieux donc l' du Sénégal est un ndax il traite avec des voyous yemul ci Franck a que avec Macky Sall c' est l' ensemble des voyous de xam ne ni mën nañu am dara Sénégal et loolu moo ñu metti ñun Sénégal ndax Sénégal mag yi fekk ko mais Sénégal Sénégal réew mu tijjeeku la euh, am ay opportunité yu fi feeñ ñu war see tijjeeku ak yeneen réew est-ce que Sénégal mën na tëju euh, wala boog di agrippé wu yenn saa si yenn considération yi ba xañ boppam loo xam ne ni njëriñ la waroon nekk ñeel askanam. très bien ñun d'accord nañ ñun dañoo wax ne Sénégal dafa war a ubbeeku Sénégal dafa war a joxe njëriñ waaye mais Franck Timis bi nga xam ne amul sax entreprise dañ ko jox marché pour mu soog a créer daar daar benn entreprise wala si am après ay royalties qui euh, xam nga douze milliards dollars ñaata 12 milliards de dollars c'est presque c'est presque c'est plus de c'est presque 7000 milliards de francs CFA waaw ah, lii xajul woon ci waa Sénégal ñun on a fait un un travail bi nga xam di xool ni avec 1000 milliards ji mill 1000 kese 1000 milliards. lii maa ngi koy wax tey laa koy waxee te mën naa ko justifier expliquer ko avec 1000 milliards euh, mën nañu régler problème mu ndox ak courant Sénégal du ko fayti waaw léegi lu tax Sénégal kon bàyyi benn saay-saay ku euh, délinquant yóbbu 7000 milliards yi nga xam ne mën na dugg si biir gafa Sénégal bu doon Sénégal moo waxaale boppam ba Sénégal mën na xool boppam ay blogam joxel koppam nekk son propre courtier état mën na ko lu tax état jël jox benn tubaab bi nga xam ne qui a des comptes euh, offshore ci ay dëkk yi xam ne nga wax léegi c'est des ETNC maanaam c'est des états et territoires yi nga xam ne qui sont non coopératifs maanaam des îles Caïman ak euh, dëkk nga xam ne euh, dëkk yooyu truand yaa fay nekk te dañ fay dem ñoom pour deux raisons pour bañ a fay impôt nga xam ne kon kii c'est même pas un bon citoyen quelqu'un qui refuse de payer des impôts dans son pays de résidence déjà qui c'est pas un bon citoyen bu état war a defal dal secondo dañ fay dem pour mën a jox une certaine opacité à leur à leur partenaire mais jusqu'à preuve du contraire dama gëm ne Macky Sall est partenaire de de entreprise bi donc fonds yi tax ñu jël ko yàqam di ko jox ko ko Macky Sall bravé OFNAC bravé IGE c'est parce que Macky Sall daf ci am dara ndax Macky Sall soo xoolee kanam bi sax xam ne kanam baadoo la donc considération yi moom dinañ si bañ léegi loolu léegi si mbirum justice xam ne ne mbirum corruption la ak nangam est-ce que jàpp nga ne mbir mi dina barbar boo xam ne nii wala boobu ma laajee ko ne leen ndax jàpp nga ne enquête bi duggul duggul ba bu président Macky Sall di fi jógee mu mu bujjee euh, enquête bi nekk ba tey en cours ba parce que mbirum corruption la lu naka lay lijjanti la. waaw xam nga corruption moo tax ma nekkoon Sénégal ñun dañoo pareegul pareegul ndax corruption boo demee fële ca Corée wala nga dem Brésil. dëkk yooyu président en exercice dañuy wax waxu corruption ñi wàccee nga xam ne foofu ay dëkk fa nekk maanaam foofu askan bu dëbbu moo fa nekk fii rek la ñuy waxu corruption ni si di xar ay temps ay naan dina gudd ak du gudd donc corruption bi nag wax dëgg yàlla man jàpp naa ni sur le plan international il y a six juridictions qui ont été qui ont été mises à contribution yoo xam ne yëpp moo laal les les principaux acteurs mm-hmm. man jàpp naa ni l' enquête suit son cours étant benn président ci bokkaale dina ko xaw a waaye fii au Sénégal dañoo am suñu juridiction bopp droit bopp te loolu Macky Sall fi mooy tax ñi mën a instruire parce que dossier bi ñu ko war a instruire dossier bi instant yi bokk ci dossier yi mm-hmm. yi mënul def liggéeyam mais Macky Sall saxul ci Sénégal daf fiy jóge et Macky Sall xam na loolu bu fi jógee ki fi wutu ki wutu ndax jàpp nga ne aussi dina nekk si logique parce que loolu tam beneen mbir la mm-hmm. euh, topp mbir mbirum pétrole bi mais mbiru askanu Sénégal la ku ko bañ a def it ñu xam ne yow saay-saay nga nag ci melew rek ku ci mënti remplacer Macky Sall te jéemul xool ñu recouvrer alalu Sénégal gi ba pare jéem a restituer image Sénégal ci àdduna bi ku ko deful mooy que saay-saay nga yàqatu Sénégal ak ko mënti doon. mais est-ce que du nduroog euh, lu ñu tuddee chasse aux sorcières wala loo xam ne nii day dugal si réew mi lu nduroog lu ñu duggoon jamonoy crée yi. non jamonoy crée yi fi tappale la jamonoy crée yi du woon mbiru teg dëgg. jamonoy crée yi benn saay-saay moo yow au pouvoir di bëgg jël sa revanche ci ay yoo xam ne il les en mhm. le président Macky Sall.

de manière équitable et de manière euh, respectueuse nag du action la làq kenn jàpp keneen ji nga kilifa dama koy xool sama bopp man kilifa bu nekk si këram bu dee dama toog aw ma aw ma dépense ma nekk sama njaboot ma ñëw ak samay doom ay xale yi ndoom leen ak xale yi ah seen papa tey aw ma xaalis de euh, sombi bi kese fi nekk kaay ñu lekkal ndoo ko après ñuy waxtaan lépp ba nelaw su ma ko defee sama kanam may doom ma lekk sombi bi jox la ñu lekk sombi bi ma tëdd nelaw samay doom il faut ma respecté dañ may fonk xam sama papa kilifa la samay doom fu ñu fu ñu naree am problème ak fi ma nar a ñàkk respecté mooy bu ma ñëwoon leen dara amu fi lekk leen soom bi ba pare ma dem jëndi dibi toog à côté de lekk sama dibi samay doom na ma respecteront pas donc coow li du question de poursuivre ay malfaiteurs coow li mooy sooy poursuivre malfaiteur même bu dee sa rakk sa doom daf ci bokk da koy génneewaale Seydina Omar ibn Khattab nga xam ne modèle la ci biir euh, gestion Euh, étatique Seydina Omar ibn Khattab était impartial si biir propre njabootam Omar ibn Abdul Aziz Kazalik mu ngi woowee le cinquième xalif bien guidé donc dama ne charte benn fi a làkk doom bañ a làkk ay collègue am bañ a làkk ay allié am soobaa sénégalais yi kenn du fi mer kenn du si am problème li ñuy bañ kay mooy mu am kumba am ndey ak kumba amul ndey li saa yu fi amee ñu tam dañu gën di wax di ko méttitu parce que loolu am ci dëkk. Euh, ñu ngi Ndour Mandat Euh, benn loi d'amnistie boo xam ne da ko fi teg en faveur de Karim Wade Khalifa Sall loolu mu ngi génnee gannaaw bi président Macky Sall dalalee waa union euh, waa cadre unitaire de l'islam au Sénégal euh, loolu ndax jàpp nga ne lu jamono soxla la fii ni Sénégal. waaw ah loolu de man dama jàpp mooy tappale politique Macky Sall yi rek man Macky Sall dama jàpp ni il fait du tappale politique li muy def nii yëpp c'est que li ko askan bi di demande wax dëgg yàlla gën na kawe li mu nekk def nii instant yi sincèrement. donc man aujourd'hui euh, topp ay nit yàq leen Xalifa Sall ko Macky Sall dafa ñaw daf ko yàq politiquement et lii ci méchanceté kese la ko teg teg ko ci leneen on pouvait bien poursuivre Khalifa Sall on pouvait bien euh, demande xool ay comptam on pouvait bien le contrôler mais c'est dafa am la une démarche bi xam ne kii est assez lâche bi xam ne et inélégante bi nga xam ne moom la ko Macky Sall defee loolu la Sénégalais yi méttitlu li Macky Sall def mais coow li mooy discipliner quelqu'un euh, fayloo ko lu mu tooñ ak ku nag mais loolu mais nag déchoir ko ba bëgg ko xañ ay droit am yow amnistie bi pour yow lu lu yan lu yanu maanaa la. waaw amnistie bi pour man dama jàpp ne euh, man amnistie baatu amnistie boobu dama ci am problème moom sëñ Mouhamed dama ci am problème dëgg-dëgg parce que man dama jàpp ne euh, mbir mi une justice li ñu a xeex du question de benn président buy buum ak buum di def yi fu maate après di balaate li ñu xeex mu justice bu bu am sérieux euh, mën a àtte correctement ba su àttee ñëpp ñu mën a nangu pour man loolu mooy combat bi. donc taxaw taxaw nag euh, euh, jouer aux pompiers après avoir mis le feu mooy li Tiken Jah wax rek euh, ils allument le feu pare après ils arrivent en pompier mu ne on a tout compris mais Macky Sall li mu def nii on a tout compris donc lii yëpp moom la moom mooy mooy moom mooy condamné moom mooy andi problème mooy tëjlu mooy amnistie lii dafa war a jeex ci dëkk bi. ndax jàpp nga ne mën na nekk un moyen aussi wàññi doole tuuti ku mel ni Ousmane Sonko dans position en direction de 2024. au contraire. actuellement le fait ce qui est ce qui est un fait inéluctable et indéniable mooy sur la sphère politique fii au Sénégal il y a quelqu'un bi nga xam mooy le chef de l'opposition mooy l'opposant le plus le plus sérieux en tout cas euh, moo ci ëpp dayo moo ci ëpp doole il s'appelle Ousmane Sonko euh, pas plus tard que hier les dessous de cartes en matière géopolitique fële en Europe art ñuy def benn benn benn benn vidéo di waxtaan su des relations franco-sénégalaises ils ont parlé d'Ousmane Sonko en tant que leader politique donc c'est quelqu'un bi nga xam moom moo fi nekk en tout cas Khalifa Sall bu ñu ko amnistie bu bokkee euh, ak Karim Wade bokk au contraire sax c'est contre Macky Sall le problème Macky Sall moo ci am problème ndax euh, plus l'offre politique sera grande plus euh, l'électorat parce que am na électorat bi nga xam ne parce que am na Euh, bu ñaar ñee bokkul seen électorat day dellu si Ousmane Sonko. absolument pas mais ñu ñaar bu ñu bokkee mën na mën na mën na tas. absolument pas mën na wàññi électorat bi nga xam ne Khalifa am na électorat bi nga xam ne du votel Ousmane Sonko du votel keneen au contraire ils se sont abstenus y a des gens yoo xam ne c'est des khalifistes convaincus élection yi passé 2019 bi ils n'ont pas voté ils se sont am na tamit si waa PDS. oui léegi nag abstention yooyu dafay dafay organiser rek benn absence deuxième tour. mais su abstention yi amul day gën day gën a leeral carte bi au contraire Sonko doit se battre sax pour que ñëpp mën a bokk ndax loolu sax mooy rôle en tant que chef de l'opposition aujourd'hui moo tax posture dafa war a changer il se doit de se battre pour tous les hommes politiques dans ce pays et il les doit bien ça dëgg yàlla ndax ba muy am ay jafe-jafe weer yi weesu ñëpp a jug taxaw bu taxaw mais jafe-jafe mi jàpp nga ne jeex na. Euh, actuellement gëm naa ni le pouvoir en place bi ñu am euh, pare na si ndax euh, dañuy dañuy mos rek dañuy ñam. dañuy tâter le pouls pour xool euh, quelle sera la réaction euh, heureusement que il y a eu un peuple debout. Mm-hmm. il y a eu une jeunesse euh, bu bañ injuste jàpp ne c'est une goutte d'eau de plus qui qui qui qui fait la la la vase. ñu mm-hmm. jug taxaw du fi amee donc li déjà kon exemple bi xam ne man jàpp naa ne instant yi élimination ak politique. par ay tëjëk yooyu Macky Sall dina changé benn benn démarche parce que Macky moom euh, il a ses ses ak ses combines yu muy jëfandikoo def na ko mu dox ci Karim mu dolli ci xalifa euh, moo tax mu ne xam xamu ko ne ci Ousmane Sonko gis na ni mhm. da koy bàyyi ndax euh, bi moo ëpp doole nguur mais ndax jàppoon ne si yoon mbir bi dem ba sës moom mooy gën a baax si ku mel ni Ousmane Sonko dañuy dem ba fu mu toll nii mi ngi sous contrôle judiciaire ba tey il faut ñu dem ba lii mën ñu ñàkk dem ba sës waaye léegi coow li kay mooy Mohamed borom boroom borom ëmb ja moom xanaa doom ji du juddu moom léegi dafa am des des choses yoo xam ne qui se passe instant jamono bi euh, coole moom il nous faut aller jusqu'au bout parce que il faut ñu xam ñan ñoo ci ginnaawam ndax tudd nañ ñu bëri tudd nañ si ay avocat tudd nañ ay ministre tudd nañ si ay proche président Macky Sall man gëm naa nag ne président Macky Sall ci boobu euh, digle wu ko man loolu gëm naa ko wax dëgg yàlla parce que lii c'est trop élémentaire c'est trop petit et puis c'est même pas intelligent en réalité donc man gëm naa kenn si ay biiram les majordomes la ñoo ko sooxe rek mais il faut ñu xam les responsables parce un fait bu bu bu toll noonu andi fi lu ëpp huit cent blessés andi fi lu ëpp quatre ay quatorze morts. wala boog quinze morts lii war na ko bàyyi nii mu nax saa il faut il faut que les les vrais coupables payent pour ce qu'ils ont fait. tey euh, Walf Quotidien dafa biral ne am na une forte pression diplomatique boo xam ne nii euh, day jéem a jénnee bu nekkee mi ngi si woon bien sûr xel président Macky Sall mbirum troisième candidature euh, ndax loolu yow jàpp nga ne lu lu xel mën a nangu la jamono ji waaw le le secretaire secrétaire américain bu ñëwee fi Sénégal Anthony bokk na ci ay waxam ak Macky ci briefé ko ci ci wàllu stabilité politique bi nga xam ne ñoom il compte sur le Sénégal stabilité boobu ndax le Sénégal aujourd'hui est le est la plateforme euh, wala boog le pivot de toute la politique américaine sur la sur sur le continent sur le la sur le Sahara ak sur Afrique de l'Ouest ndax Sénégal stratégiquement dafa am taxawaay. Euh, am am visibilité. Euh, ñu bëgg fi ñoom déployer ndax ils ont des accords militaires avec le Sénégal donc ñoom dañu ko ne Sénégal bi war lu mën a donc il des enjeux financiers et pétroliers yoo xam ne à partir de 2023 bi dafa nar a gën a walangaan donc il nous faut sécuriser ce pays la donc Macky Sall a été briefé loolu moom ñu euh, wax for ko ci weewu ci weewu bëy for ko ci weewu bëy diggante parce que palais ba tamit ñëpp ay wax presque mm-hmm. donc euh, Macky n'est pas xam na jàpp nga ne malgré loolu noonu di dina tax bu ko naroon a def mu bañ koo def na Macky dafa leen jox assurance sax dafa leen jox assurance leen moom il n'a question pour mu def deuxième mandat il les a sax il paraît ko daf ko wax ne ko man mii bëggoon wàññi sama mandat sax ba conseil constitutionnel forcé na ma continuer ko ma aw problème mandat donc loolu la jaay américain te américain yi kontaan nañ ci waxam boobu xam ne kii effectivement il a voulu diminuer te loolu c'était une première dans l'histoire politique des pays africains ku bëgg a wàññi mandat ndax fi yokk mandat lañ fi xam rek mhm. donc euh, assurance boobu leen jox man loolu daf may gën a conforter que Macky Sall daf euh, ñu am benn kilifa gu mag bu ñuy wax Rawaan Diop bu bind benn te tuddee ko une monarchie au cœur la République mhm. euh, kooku c'est grand héros du Sénégal bi xam maa ngi koy maa ngi koy jaajëfal euh, di ko di ko di ko di ko di ko bëggee ci plateau bi ma toll. mais livre bi dafa am lu am solo yoo xam ne lu ñuy expliquer di expliquer comment euh, la République dafa am ay fonctionnements yoo xam ne qui sont man sax j'ai benn alliance entre les deux moo tuddee ko la monarplique. Mm -hmm. donc il y a des attitudes monarchiques dans la. République donc kon kii euh, quelqu'un bu ñu jox loxoog tànk ne ko yow. yaay chef constitution yaay chef des armées yaay chef magistrature tu nommes et révoques à tous les emplois civils et militaires mhm. maanaam yow kii genre benn demi-dieu la mhm. dans le régime présidentialiste mhm. donc man attitude boobu fa laa koy dugal jàpp ni ba doolaa falu buur rek te su faloo buur lu ko neex lay def euh, mais gëw ma ne Macky am na itte bi nii am na xalaat bi wax dëgg yàlla d'accord léegi waxtu bi xoñ nañu mais comme waxoon naa ko si ndorteel bi faaw ñu wax si élection présidentielle ba sa Gambie euh, fu mu toll nii euh, Adama baro moom moo euh, féete kaw si ginnaaw ki nga ni moom mooy Dabo nekk opposant bi nga xamante ni moom moo gënoon taxaw foofu noonu. Hmm. résultat yi ni mu tukkee ban réaction nga si am ak tamit ban pour yow ban impact la war a am sur du point de vue géopolitique na si diggante Gambie ak Sénégal xam naa ne laaj yi bëri na mais. waaw Adama Barrow moom wax dëgg yàlla man depuis le début ne aw ma benn yaakaar ci Adama Barrow man tamit bokk na si gars yi xam ne ma gëm ni ils n'ont pas le profil du poste ndax Adama Barrow dafa war waa Gambie dafa war waa Gambie il a ah, moom newoon na benn lay def il a euh, mhm. lépp lu mu diggee woon ba ci wàllu corruption ba ci non sàcc problème bi sàcc la kay xam nga seen système d'élection Gambie ba tey sax dañoo dañoo ñoom dañoo garder seen système électoral euh, colonial avec les billes ay égat la ay égat la gars yi di voté ak ay sàcc gi fa lay gën a yombee y a beaucoup de choses yoo Sénégal peut être dépassé ko Gambie aujourd'hui dépassé bu euh, donc waa ji euh, li mu waxoon yëpp defu li mu waxoon yëpp waxoon na ne dafay dafay dindi corruption ci biir Gambie maanaam les grands corrupteurs ak ceux yi leen atte ba mu ñëwee il s'est allié à ces gens là daf leen conserver dans le gouvernement mm-hmm. euh, waxoon na ne ñetti at lay def day dem ba mu ko defee tamit waxul woon dëgg euh, force na dépassé ñetti atam. Mhm. donc lépp lu mu waxoon ba ci commission réconciliation vérité bi mu créé waxoon ne su ko su ko téyee jox nañ ko seen rapport depuis novembre. baat sax ko ci donc parce que am na ñu bëri ñu incliné dans la commission bi nga xam ne moom ci boom wax dëgg yàlla euh, mu ngi ànd ak ñooñu mu ngi liggéeyandoo ak ñooñu. donc kon moom kenn la bi xam ne. le nouvel ordre mondial kese ko yebaloon ngemb ko pour mën a démanteler Yaya Jammeh parce que à la fin nag il dérangeait à partir de 2012 ba jëm 2017 yaa jàmme dérangé yaa jàmme dem na ba dindeeku ci Commonwealth désinscrire fa yaa jàmme créé na une brique islamique euh, te lii yëpp c'est que dafa am ay yu bëri yu mu def yi nga xam ne moom la ko saay-saay yu jiitee àdduna bi mooy yéeféeru àdduna bi moom la ñu ko meree ils ont tout fait pour le démettre à la au grand prix nag du Sénégal li nag yaa Barrow moom élection moom ak nekkam ak bi dafa am un parrain son parrain mooy Macky Sall Macky Mhm. daf koy taxaw daf koy dafa daf koy daf koy daf koy parce que Macky dafa am ay intérêt Gambie c'est vrai que nag géopolitiquement Sénégal dafa gagné en matière d'influence dans la sous-région surtout ci Gambie ak Guinée-Bissau euh, nga xam ne ñoom ñaar ñëpp c'était presque des antennes lañu si biir Sénégal mhm. euh, Macky Sall di jouer au bureau lu bëri foofu noonu moom Sénégal la ko moo tax ba ci technique bu sàcc yeeg yëpp ci élection yëpp Macky mu ngi leen taxaw <laughs> ndax ndax daf ci am c'est que il a conduit les élections il a été directeur de campagne c'est que Macky dafa xam élection. non moom nee na dépassé na fu muy ndax xam mag bu jëm bu taxaw ne léegi bàyyi naa Ndiou Ndiaye nga xam ne kon kooku moom lu muy wax noonu sax Ndiou Ndiaye la <laughs> donc faut dire que Barrow ak élection yi sincèrement euh, opposant Darbo dégg naa ko nee na moom reconnaître euh, chiffres yi. moom min nañ ko si Afrique moom. waaw te loolu moo ñaaw nag suñu demee ba si. jamono bu bu ñu demee ba pays africain yi ñuy am problème si ñëpp nangoondoo mooy kon les systèmes si élection yi moo xam ministre yu koy gérer ak système yu jëfandikoo kon muccul ayib te maanduwul moo tax mu demee noonu. d'accord donc euh, yàlla na yàlla def jàmm nag Gambie. ponk bu mujj bi. ñu koy junj sànq wàllum làmb ji li ñu si gis euh, démb rapidement. waaw man làmb wax dëgg yàlla sëñ Mohamed man dama jàpp ne ko war a jënd si dëkk bi man dafa am yu ñàkk fayda yoo xam ne si dëkk yi xam ne euh, doxalul économie dëkk euh, defarul dëkk te lii wax dëgg yàlla du suñu du suñu culture maanaam lutte avec frappe bi sax c'est pas notre culture bokkul suñu aada donc lii benn day cristalliser ay violence euh, yàq-yàq li gën a bëri lii ñu dañoo tollul ci ay foo man chaque fois wax gars yi ne foo ak caaxaan luxe la dëkk yu développé ñu jàpp liggéey la de. non lutte liggéey ñenn ñi sax dañ ne mbay naan la lutte est un facteur de développement. lutte du liggéey musul nekk facteur de développement la lutte du liggéey euh, lutte affaire de facilité la euh, wax dëgg yàlla affaire de tappale la mbiru ay agresseur ak caaxaankat la yoo xam ne wax dëgg yàlla man jël jox jëluma au sérieux la la lutte sincèrement la lutte dans un pays sérieux mënul nekk facteur de développement un pays pour développer dañuy takk seen digg liggéey askan bi xam ni il nous faut ñun ñëpp une génération sacrifiée yu a xare dee y a un coût pour am développement donc euh, lutte moom wax dëgg yàlla ak yi ak fecc mësta ne ak ay miss lii yëpp du ay facteur développement luy yàq sax euh, les cultures la la tradition ak euh, héritage yu mag yi. si wàllum sécurité aussi gis nañ ni mu demee agression yi ak yooyu loolu ndax du interpeller aussi gouvernants yi ngir ñu gën a taxaw si wàllu woowu. waaw ñun nous avons un gouvernement ki qui a failli un état failli la ñu am état bi nga xam ne mun mënuñu garantir suñu sécurité mënuñoo yombal ay ay dund dund. maanaam lépp li xam ne dañuy doy état ci joxe ay fourniture minimale ba ci ndox bu baax am gox yu bëri mun ñu am ndox bu baax doom sax la ñu am donc ñun dañoo am un état failli bi nga xam ne qui ne travaille pas pour nous conscience boobu que cet état là cet gouvernement là ne pas pour nous et il faut ñu jël su responsabilité en main jàpp na jafe-jafe yu ñu am yëpp wax dëgg yàlla ko saafara saafara ko wul professeur amoon naa mbégte lool dalal la ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñoom. waaw fii la ëppee sëñ Mouhamed di la bëggee lool di am mbégte euh, ci jotaay bu tedd bi di. nuyu ak di balu ak euh, ñi nga xam ne ñooñu doon seetaan ci biir ak ci bitim réew di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix euh, defal ñu taysiir ba Sénégal jàmm gën fee yaatu te xéewal am fi ak tawfiix donc wa axiri daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf professeur amoon naa mbégte de la laal bu baax baax si Seneweb noonu laa amee woon mbégte jàkkaarloo ak yéen à partir de 17 heures incha allah si l' émission Euh, suba incha allah bët set nar a euh, dalal ki nga ni moom mooy euh, docteur Babacar Niang bu suma assistance moom la ñuy dalal suba ci bët set ma sant bu baax ak gërëm Thierno Ba mi nekkoon si régie bi dig leen daje suba incha allah jaa ngeen